gis ngeen distance bi dox diggante Makka ak Medina ñeenti téeméeri kilomètre la ak juróom fukk quatre cent cinquante kilomètres ñun ci bëccëg ba léegi ñu ngi ci yoon wi wàcc nañ fi ñaari yoon gudd nañ suñ tànk yi noppalu nañ lekk nañu terewul am na ci ñun ñu yëg coono nañ imaginer nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee Makka jëm si Madina ak moyen yu limité yi ma amee woon waaye jaral ko ko yàlla jaral ak bëgg gum bëgg risaalatu gi ko yàlla jox mu yeggee ko fa mu war a yegg te mooy lam waxoon ne woote bii di lislaam guddeeg bëccëg àkk dana fa àkk mu ne loolu nag dafay nekk ci toroxuk aju torox baa ci tedduk aju tedd maanaam kum neex danga nga teddee ci loolu kum naqari da ci toroxee waaye lislaam tey fuñ ko gën a bañee sax fa la gën a gaaw a màggee day tugal dëkk bi gën a sonnal jullit ci tugal boo ne benn balaa nga ne ñaar ne France ndégam du ñooy numéro one number one waaye tey wax nañ ne feek lu néew lu ëpp lu yées juróom fukki at bu yëf yi arrêté wul diine ji gën a mag ci France dana nekk diine l'islam boo demee tey Angleterre wax nañ ne turu wi fa gën a siiw léegi mooy turu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam London dem na bañ koy tuddee Londonistan ndax bëri ku fa julli di bëri seen maire ba sax ci jamono ji ñu toll ab jullit la loolu nag li ko waral mooy yonentu sallallahu alayhi wa li ko yàlla waxoon kafu ci woon foowu ci woon amu ci woon it maslaha pour mu yegg fa mu war a yegg wax nañ ne ab yonantu ñett qualité lay am yoo xam ne bu ca manqué rek ñu xam ne du yonantu qualité bu njëkk ba mooy ak dëggu ab yonantu du fen mukk yajibu lir rusulil kirami sidqu amaanatun tabliiguhum yaxiqu muxaalun ilkadibu walmanhiyu ka adami tabliigi yaa dakiyu yonentu ci ngoneem sax melo wiñ ko daa mellale biir Makka mooy as-saadiq al amin ku dëggu ki nga xam ne du wax mukk lu dul dëgg sallallahu alayhi wa sallam ku wóor ki nga xam ne loo yore te bañ koo ñàkk demal nga dénk ko xam ngeen ne yonentu li ko waa Makka di sonnal sonnal ba muy gàddaay lu taxoon mu wax Seydina Ali ibn Abi Talib mu fanaan néegam ak nafa toog ñetti fan balaam koo fekki Madina lu taxoo benn bi mooy pour ñu foog ne am na ko ne ci néeg bi ñu foog ne mi ngi ci néeg bi ndax am na ñu ko doon tëru pour bëggu koo rey ñaareel bi mooy bari na waa Makka yoo xam ne seen alal moom lañ ko dénkoon malgré li ñu bari ci moom ñoom bañ a nangu diineem waaye xam nañ wóor ga ak jub ga bu doon keneen la mën naa wax ne ñii di ma wóot a rey de seen alal yii moom naa ko dimbandikoo dem waaye def ne Aliyu toog fi ñetti fan dénkaane yi ma ñu ñi dénkoon yëpp nga delloo kon moom ci ngoneem lañ xam ne kii mbaax rek a ne ci moom ci ngoneem la wane boppam moom la imaam Buusiri ne alihu nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakada nujabaa mu ne yonentu miin na jaamu yàlla miin na mbaax miin na wéet di xalaat boromam fekk booba ma ngay gone gu tuuti mu ne wa hakada nii lay mel nag an nujabaa ñi fas yéene baax yépp ku fas yéene baax fokk nga miinal sa bopp yi nit ñi nanguwul a miin waaye bu fekkee ne fu nit ñi ne nga ne fa lu nit ñi ne nga ne ca lu nit ñi def nga def ko lu nit ñi wax nga wax ko ah lu dal nit ñi dal la rek sëriñ suur si borom daara ji yal na ko yàlla yërëm moo daan wax ne lu neex waaye def ko lu neex waay wax ko nee na lu neex waay dal ko rek ak koo xam ne lu ko neex def lu ko neex wax a ah, ah, ah. ok lu luy dale rek dal ko waaw li xale yi naan doyuma bay des ma ne waa doyoo kay ku doy du wax loolu doyuma bay des maanaam valeurs yi bu ñuy wàcc ci làmmeñ lay njëkkee dafa am baat yoo xam ne kenn xamul lu muy biri doyuma bay des kenn xamul lu biri walla man rek depuis loolu léeg-léeg ñoom Pape nga dégg ñu ne man rek ci xale. seetal seetal expression yoo xam ne doo xam sax lu muy te ñëpp a koy wax kat ñëpp a koy wax yonentu sallallahu alayhi wa ñor gi ko diine ji ñor tax mu daj lii ma ne yàlla ñi muy yónni jikko bi ci njëkk bi ñuy jikkoo mooy ak dëkku dëggu rek Cheikh Omar al Fouti rahmatullahi alayhi dana wax ci téeréem ba rimaahu xizbi rahim ala nuxuuri xizbi rajim bi muy wax ci ku jëm ci yàlla lu mu war a njëkkee mu nettali ne awalu qadamil muridi ndëgu bi kii nam ma yegg ci yàlla jéego bi muy njëkk a séq mooy dëggu ak boromam kon dëggu mbokk yi lu mot bàyyi xel la moo tax Abu Sufyaan lim doon contre contre yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca jamonoy kéeféer ga bi yonentu yónnee lettre ca buuri ruum mu laajte ne ku dëkk ci dëkk ku ne ci dëkk bi te jógee fii borom lettre bi dëkk nañ ma ko indil ñu indil ko yaxankat yaxantukat yaram yi ne woon ca jaba yëpp xaw ma ndax dégg ngeen wolof yooyu yëpp déet ne woon ca jaba yaxantu mooy commerce yaaram mooy arab ab ja mooy marché maanaam commerçant yi arab yi newoon ca marché ba yëpp ñuy ni leen mu laajte ne yéen ñii kan moo ci gën a jege kii yónnee lettre bii nekk ne waaw yonantu la Abu Sufyaan ne man tam boobu maa ko gën a jege ci ñi fa nekk bi ne ko jege si wax ñi ma àndal nag ci làmme ñu interprète bi en leen kii dama ko jiital ngir laaj ko waaye su waxee lu dul dëgg na ngeen wax ni dafay fen mu ne budul woon ragal naa ñu nettalil ma ne fenkat nga konoon dinaa ko fenal fen yu tooy xepp keroog bokk na ci yi ko buur bi laaj ndax xam ngeen ko ci fen mu ne déedéet biñ ko xamee ba léegi de mosuñ koo xam ci wax lu dul dëkk loolu ay noonam ñoo ko ko seedeel buur bi ne koo xam ne rus ngaa fenal nit ñi doo fenal yàlla koo xam ne jomb ngaa fenal nit ñi doo fenal yàlla ñaareel bi mooy amaanatu ab yonantu dafay wóor dafay wóor maanaam du wuruj du wor bañ laajee Abu Sufyaan ndax danay wuruj mu ne ah mosul ñëw wuruj de mu ne waaye fi nekk nii ñu ngi am benn eh, cease fire cease fire mooy lan ci ci ci français cessez le feu waaw kay ngi am benn cease fire xawuñ nag nu mu ciy def mu ne foofu rek laa mënoon na proxlul benn baat buur bi ne ko naka noonu yàlla du yónni koy huruj gannaaw du du koy wóoruñ am na ji koy yonantu kon maanaam lii la yàlla wax ñu war koo wax jaam ñi wala lii lañ seq ak jaam ni mbaa liñ seq ak seen borom duñ ca bitroy duñ la disiir duñ war mukk ndax ku baax war ak jotal li leen yàlla yónni lum métti métti mënoo fexe ba duñ ko def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jotoon li ko yàlla yónni jaraloon ko lu ne yaa ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafal fama ballagta risalatihi wala fama ballagta risalatahu bul ragal nit ñi wallahu yaasimuka min annas loolu la ko sama borom waxoon moo tax ménage ménage wul benn effort pour képp kenn ak fépp fenn ba faw jot ci li ko yàlla jottali loo sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ba mu demee nag ba woote gi mën tuta noyyi ci biir Makka ci la fa bàyyi makka gi nga xam ne xamut fudut moom bëggut fudut moom ngir wuti feneen fu mu dundalee ak fu mu noyyilee woote gi loolu li muy firi mooy fuñ mënta nekk mbokk yi li feek mën nañ fa doxal si diine rek foofa suñu nekk fa jaadootut suñu nekk fenn du jaadu fekk mënuñ faa doxal suñ diine bi yonentu demee nag ba mënatula doxal diine ji makka ndax mayetuñ ko jàmm moo ki saxaabaam ci la ko yàlla jox ndigal mu dagg yoon wu métti wile pour dem dëkk bañ daan tuddee yasriba waaye yàlla soppi tur wi ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam dëkk na fa dootul yasriba waaye tayba la dootul yasriba waaye taaba la dootul yasriba waaye daarul imaan la dootul yasriba waaye almadinatul munawwara bi anwaari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mooy dëkk biñ leeralee leeru yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonentu Seydina Anas nee na dëkk bés bi mu duggee Madina mooy bés bi gën a leer ci Madina gën cee neex waaye bés bi mu faatoo moom yonant sallallahu alayhi wa mooy bés bi gën lëndëm ci Madina gën cee naqati sallallahu alayhi wa sallam yonantu def na juróom-ñetti fan mbokk yi ànd ak coono gu rëy pour yegg madinatul munawwara mi ngi jógee makka bésu altine yegg si madina bésu altine ci weeru juddoom wi nag yonentu sallallahu alayhi wa ci weeru rabi al awwal la gàddaa waa léegi lu tax kon ñuy taarixal ne weeru muharram mooy premier mois du calendrier te weeru rabiul awwal bi nga xam ne mooy ñetteelu weer ci at mi ci la gàddaayoo lu tax rabiul awwal nekkul premier mois bon bu ñuy taarixal xam nga ñun suñu taarix ñun jullit yi mi ngi dépendre ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ndax dëkk dëkk lislaam nag fa la noyyi fukki at ak ñett yi def Makka daj na fi lu ne waaye nag résultat fukki at ak ñett yooyu jiwu fukki at ak ñett woo yooyu mi ngi jebbee ñu bayee ko mbay mu rafet boobee ko almadinatul munawara moo tax bul wax ne yëf yi madina rek la doxee déedéet dañuy wax ne bambou tree benn garab la bu ñoo bay defe naa ca nee ñu balaa moo boo ko boo ko boo ko jëmbatee balaa moo génn di sax dana am nangami at ñeent jàpp juróomi at soog a sax waaye at yi nga xam ne la nekk ci biir suuf bés boo jékkee sotti woo ci ndox rek mu dee waaye dinga sotti ndox bés bu set nag ba mu am nangami at soog a génn bul ni rek juróomeelu at mi ci la màgg da nga naan ci juróomi at yi yëpp la màgg naka noonu woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiwu yam daan ji ci xoli jaam ñi ci Makka ak ñi daan ñëw Makka di visiter ba waa Madina ñëwal ko nekk lim tuuti lim bu gën mag ak lim bu mag ñetti yoon lañ dikk ci la gàddaay di soog a am diine di noyyi imaam ibn hajar asqalaani tontu na question wu lu tax yonent bi gàddaay ci weeru gàmmu ba pare premier mois de nekk weeru tam mu ne parce que jaayante muy allégeance bi nga xam ne yonentu sallallahu alayhi def na ko waa Madina pour gàddaay si ci weeru tabaski la amee te weeru tabaski weeru tam xarit tam moo ca topp kon weeru tam xarit mooy weer wi nga xam ne moo njëkk gannaaw bi ñu signé pacte bi tax yonentu sallallahu alayhi mën a gàddaay kon weeru tam xarit officiellement ci la yonent bi décidé gàddaay ci la ñu commencé préparation yi ba ni muy deme weeru gàmmu sallallahu alayhi wa booy seet nag weer wi njëkk maanaam bés bi njëkk ci weeru ci atum gàddaay gi muy ci l'an un ci atum gàddaay gi bésu àjjuma lay doon bésu àjjuma boobu nag mooy premier jour ci muharram ak mu njëkk ci gàddaay gi boobaak léegi am na junney at ak ñeenti téeméeri at ak ñeent fukki at ak ñeenti at ren ñu ngi ci mille quatre cent quatre mille cent quarante quatrième année depuis bi yonentu sallallahu alayhi wa sallam gàddaayee Madina loolu nag boo doon xool atum ngeen di atum tubaab te atum tubaab atum jant bi la atum jant bi nga xam ne ñi koy datee ci juddug yontu yàlla isa alayhi salaam ajjuma jooju dafay tombeeg le 16 le 16 juillet 622 fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet gannaaw juddug Seydina Isa cun juróom benn téeméeri at ak ñaar fukk ak ñaar danañ ca teg fukki at le 6 juin 632 ci la fi sang bi di jógee sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama yàlla wan ko nag ay kéemaan yu rëy rëy yoo xam ni ay mujizaat lañ leen di tuddee mujiza ci xàqu ab yonent mooy luy lottal kudut moom mooy loo xam ne yonentu sallallahu alayhi daf koy def waaye kenn du ko ca mën a fekk ngir ñaar kenn du ko ci mën a fekk ngir ne loolu ku dul ab yonantu mënu koo def wala kenn du ko ci mën a fekk ndax bu ko nit ñi mënoon def sax gannaaw yàlla def na ko muy mujisa ñeelub yonantu rek def gim ko def muy ab mujisa ñeel yonantu dana tax ñi ko mënoon a def sax tële ko ñi ko mënoon a def tële ko ba ca njëkk mooy yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi muy génn pour gàddaay si guddi googu la waa Màkka daje ci daaru nadwati daaru nadwa gi nga xam ne maamam bi ñuy wax Xusay bun Kullaab Xusay doomi Hakim koy tuddee Kilaab ndax dafa daal rëbb daal yore ay xat yu bëri maamam boobu le di Kilaab bu dee xusay moom la ñuy wax mu jamme moo tabaxoon kër googu di nag natwa nga xam ne moo doon assemblée bi Quraysh daan dajee foofu nag ci jamono yonentu sallallahu alayhi wa sallam fa la noonam yi dajee woon pour nag waxtaanee mbiram nee ñu gaa eh, nee ñu daal kii gis nañ ne mu ngi ciy pexe nañu seet mbiram na ñuy def suñ ko defut eh, mbiram mën na ëpp loxo ñu wax nag ay xalaat wa id yamkuru bika alladina wa id yamkuru bika alladina kafaru li yuthbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llah wallahu xayrul makirina yàlla ngi wax ci alquran ci suratul anfal fàttalikul bi la yéeféer yi di fexeel am ñu ne nañ ko tëj ci kaso duñ ko jox mu lekk duñ ko jox mu naan ba mu am ñu ne déedéet nañ ko takk ci gëlëm ba mu teeg nga xam ne du mën a yeewi boppam daal dàq gëlëm gi mu topp àll bi ba coono ak tumuranke ak méttit rey ko ñu noppalu ci moom ñu ne aboo Jahl ne yenn de seen pexe yi sàmmikati gàtt sax duñ pexe noonu ñaar yi yëpp benn du ci dem ndax bu ngeen ko bëggee tëj ba mu dee ay mbokkam Banu Hashim duñ ko seetaan su ngeen ko dàqee yi ak gëlëm kàddoom gu neex gi fu mu romb dana wax lu tax ñu tekki ko ànd ak ñoo ñu xeex si ñu ne ko Abul Hakam loo gis yow Abu Jahal yonentu moo ko tuddee woon bàyyi réer moom nag Quraysh dañoo foogoon xalaatam ba koy wax bàyyu xalaat bu rafet Abul Hakam the father of wisdom loo xalaat yow mu ne dama bëgg giir bu nekk ci Quraysh ñu seet waxambaane wa ci gën a am doole ñu jox leen jaasi guddi gu ne dana génn dem ca Kaaba ga su génnee ñoom ñëpp buñ ne xëy rek ñoom ñëpp seqandoo ko dóor ku nekk gor ko jaasi ba mu dee su ko defee deretam dana tasaaroo ci biir Quraysh Banu Hashim duñ mën a xeex ak Quraysh yëpp buñ ñu laajee xalal nag ñu jox leen lépp luñ bëgg ci xalal te ñu noppalu ñu ne fekk boobu Iblis soppaliku na am mag ñëw dugg si ca ndaje ma biñ ko laajee yow akan mu ne am mag laa mu jógee najat dégg ne yéen a ngi waxtaanee lu faagaagal noonu bi ma ne naa ko fekkee si ñu ne moo njëkk a wax ne kii li wax mooy xalaat ñëpp ànd ci guddi googu nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal ko li ñoo ñuy waxtaanee ne ko bul fanaan mag ci bëccëg la yonentu sallallahu alayhi wa sallam dem seeti Aboubacar Siddiq radiallahu tabaraka ko li nga xam ne moo war a am wax ko li nga xam ne moo war a am Abu Bakar fekk préparé woon ñaari gëlëm ca la ñu def seeni plan pour génn ba yegg si euh, dundaat fi fukki at yàlla musal ko de façon très miraculeuse ba ni mu fiy jógee kenn mënulu ko dara ndax yàlla ne ko maa lay musal ci nit ñi wax naa ne léegi mi ngi fi jógee 632 te pexe mi mu ngi amoon cent 622 622 la yegg si Madina waaye le 8 juin la fi la jógee ci àdduna le 8 juin 622 ëllëg 632 ngeen baal ma xaw ma le 6 laa waxoon sànq waaye le 8 la bu fekkee dama waxoon le 6 le 8 juin 632 euh, la fi jógee moom yonentu sallallahu alayhi wa waaye guddi googu nag yàlla dafa wane kéemaan mooy lan bi ñëpp tëddee foofu toogee foofu di ko xaar yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng suratu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 ñoom ñëpp a biddanti keroog bi ñu yeewoo ku nekk naan ana waa ji ñu naan ana waa ji ñu ne waa ji dem na magam najat nag ne ba mu yàlla bindee ba léegi mosuma nelaw tey laa soog a dalaw ñu ñëw fekk Seydina Ali ibn Abi Talib moo ne ci néeg bi yonentu waxoon na ko ne na ko fi xaar moo tax guddi Aliyu googu gënn guddi melut ni moom mooy ki njëkk a jotee boppam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent waxoon na ko ne toogal fii bu ca dee aljanna bu ca dee ut fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne nag du ca dee ndax yonent nee na ko des fi ñetti fan delloo ndénkaane ku dugg si rek ne yonentoo gi ñu ne déedéet malaat mii de Muhammad la waaye càngaay gi du moom ndax Seydina Aliou dafa gàttoon ndax yonent te yonent dafa dafa guddoon maanaam njoolu loon njool waaye njool la gënoon a jege ci gàtt dafa digg doomu woon sallallahu alayhi wa sallam loolu nag bu nekkee moom kenn waaye bu nee ci mbooloo nag mooy su mbooloo ma yëpp loolu maqaamam la sallallahu alayhi wa sallam kon kéemaan googu la yàlla njëkk gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaareelu kéemaan gi mu wane ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy yonent bi muy gàddaay plan def moom Abu Bakar mooy jël ñaari gëlëm yooyu war leen a yóbbu waaye am tamit koo xam ne moo leen di guider ak gëlëm ya muy Abdullah ibn Urayqit ñu fay ko pour mu won leen ni yoon woo xam ne bokkul ak yoonu Medina wi ñëpp xam muy yoon woo xam ne yoon alternative la jaar ca tefesu jëdd ga gis ngeen wax nañ ne sax jëdd ci boppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na jógee mag guddi di zikar naan allah ñëpp di ko xool allah ñëpp di ko dégg dem ba kenn dootu ko gisati kenn dootu ko dégg da ngay toog a dégg baat bi tànk ba dootoo ko déggati ñu naan ajaban inna muhammadan yachabu rabbahu kéemaan muhammad daal moo bëgg boromam yal nañu yàlla may bëgg suñ borom yaa rabbi yal nañu yàlla may bëgg yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yonantu moom Seydina Aboubacar def nañu liñ war a def yëpp ci ay plan moo tax booy jëf yaag man lépp loo war a def ci plan yuy tax la nga war a jëf sotti la ngay fexe la ngay fexe sotti yëpp na ko def ci wàllu planification ci wàllu ci wàllu ci waaye nag bu ca sukkandiku sukkandikul ci yàlla Cheikh al Khalifa Aboubacar la ko yàlla yaram daan na wax moo wëy wëy wër si woowu su sabartu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya maanaam sabab yi nga war a def yëpp def ko waaye bu sukkandikoo nag yëngu ya yonentu sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakar sabab yi ñu war a def yëpp pour mucc def nañ sabab yi ñu war a def yëpp pour kenn du leen gis def nañ sabab yi ñu war a def yëpp pour kenn du xam fuñ nekk def nañ ko terewul Quraysh dox nañ ba xam fi ñu nekk sabab yi ñooy yan am nañ ay waruwaay jël nañ gidd boo xam ne xam na yoon wi ñu fay ko sàmm Aboubacar bi ñoo Amir ibnu Buhayrata wax nañ ko ne mu ànd ak gàttam gi maanaam xar yeeg bëy yi ak nag yeeg yooyu topp seen gannaaw ndax nit ñi duñ xam fu seen tànk yi jaar asmaawu mooy moom lañ wax diggu guddi lay ñëw ci xaar ci xunt wi xaaru thawr bokk la xaaru xiraa xaaru xiraa ci lañ yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xaaru thawr fa la làqatu woon moom Seydina Aboubacar ba muy gàddaay daañ dem ci ñaar yooyu yëpp visité leen bu soobee yàlla ñu ne nañ làqatu ci xunt wi ñetti fan ndax xam ne ñu danañ wut bu ñu wutee ba ñetti fan yi weesu nag ñu soog a génn dem waaye ba Quraysh jógee yàlla wan na leen tànk ya ñu ne dem nañ ba ci kanam ñu gis ne ah, tànk bii dee Aboubacar la ndax ñoom ñu xàmmee woon tànk lañ léegi la waaye nit ñi dañ naan xàmmee tànk léegi nag kenn xàmmeetu dara dara ndax technologie moo ñuy defal lépp bi technologie ñëwagul nit ñi dañoo muusoon daan nga jàpp téeméeri su téléphone waaye léegi kenn ja eh, sa numéro bopp sax boo moytu dootoo ko jàpp ndax technologie am na njëriñ nag waaye am na ay downsize yàlla nañu yàlla jox njëriñ li te musal ci ci downsize yu ne tànk bii de boobu Aboubacar bi la waaye tànk bii kenn mën a koo xàmmee ba ca maqaamam ba Ibrahima kon tànk yonent bi la ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam moo gën a niru Ibrahima ci li yàlla bind wax naa ko sax ci hadis ba muy wax ne gis na Moussa mu mel ni waaye ci maanaam mu mel ni góori banu Shanu'a ay nit lañ ñoo xam ne ñu digg doomu lañu woon ñu am kattan lañu woon it xam ngeen ne Moussa dafa amoon kattan moom it alayhi salaatu wassalaam ba muy tudd Seydina Jibril ak nam meloon mu ne mu ngi mel ni mu ki ko ki ko niru ci saxaaba yi mooy dixiyatu bu fekkee ne Jibril dafa jël melow nit dixiyatu min xalifa lay lay lay niru bu dee Seydina Isa urwatu mu ne waaye nag Ibrahima niñ ma ko wanee ki ko gën a niru ci jaamu yàlla yi mooy seen waa ji moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne tànk bii moog ba ca maqaamam Baay Ibrahima benn lañ te tànk boobu moo leen yóbbu ba ca xur wa yonent bi nekk yàlla ngi ñuy wan ne defal li nga war a def yëpp nag waaye man lay neex ma aar man lay neex ma sottal wul sukkandiku mukk ci sa sabab bi nee ñu ku feebar nanguwul a faju dof la waaye ki jël garab naan ko wér gëm ne garab bee ko wér loo yéeféer la yàllaay jaarale wér ci garab waaye garab du wér loo kenn mooy jaarale wërsëg ci liggéey waaye liggéey di jox kenn wërsëg mooy jaarale xam-xam ci jàng waaye jàng du jox kenn xam loo sonn ci jàng am na ku ca sonn lu ëpp loolu te xam li nga xam am na koo gën a sonn mu ëpp la xam-xam loo sonn ci liggéey am na ku sonn lu ëpp loolu am ci am na koo gën a sonn téeméeri junni yoon mu ëpp la wërsëg garab boo naan wér am na ku ko naan dee kon boo sabab lu wut dof nga waaye boo jàppee ne sabab lu gee tax am li nga am yéeféer nga sew la nag bu bu jara bàyyi xel sabab lu bu leen sukkandikoo yéen bañ demee ba tiim leen Seydina Ibrahima eh, Seydina Aboubacar ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam kenn ci ñoom xooloon suufi tànkam rek gis ñu yonentu Aboubacar ay ragal waaye moom du ragal mu ne Aboubacar maa zannuka bi ithnayn allahu haliduhuma ma loo xam ci ñaar ñoo xam ne yàllaa leen ñetteel yàlla nettali na conversation boobu ci alquran ci suratu tawba nee na illaa tansuruuhu su ngeen dimbalewul yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faqad nasarahu llah yàlla dimbali woon na ko bu yàgg id axrajahu alladina kafaru ba ko yéeféer yu génnee thaniya thnayni mu ñaareelu ñaar ña id huma fi lgaari fekk ba nga xamee ne ñoom ñaar ca xunt wa id yaqulu li saaxibihi la tahzan ba muy wax àndandoo Aboubacar rek la yàlla yaxal ci alquran ne àndandoo yonent bi la la tahzan bul jàq inna allaha maana yàlla ngi ànd ak moom gis nga yonantu ba muy wax yàlla ngi ànd ak moom dafa yóbbaale xeetam bi moo tax xeetu yonantu sallallahu alayhi wa sallam war nañoo sant yàlla di lay yonantu defal mënuñ ko ko fay Moussa nag mënutoon a compter ci xeetam wi ci boppam rek la mënoon a compter moo tax waxul inna allaha maana ba ko gaañee ne ko firawna ngi dale ak mbooloo dinañ la mudrakun ci suratu shuara qaala kalla inna ma'i rabbi say déedéet sama borom a ngi ànd ak man waxul mu ngi ànd ak ñun yonentu nag konte na ci ñun waaye du ci ñun ñëpp la konte ndax ku ko war bokkoo ci yàlla buñ ko war yàlla mais yàlla ci ña tax ma naan inna allaha maana nan la yàlla musalee yonentu bi ñu ko musalee kéemaanu ak ab jargoñ ñëw rabbu ci buntu pax mi ñu ko xool ne ah, jargoñ wii de ba muy rabbu fii ba moytuwul Muhammad sax judduwul ci waxin maanaam fii kenn dugg fi mu tax ñu ne kenn dugg fi mais ñu ndax bu fi kenn duggoon néegu jargoñ bi mu ràbb fi dana yàqu néegu jargoñ moom yàlla ne way na wenal buyooti la baytul ankabuuti néeg bi gën a doy doyadi ci néeg yi mbaa kër gi gën a doyadi ci kër yi mooy këru jargoñ jargoñ mooy spider boo ne nii rek mu mu daan xam nga kon ku toll ni yonantu sallallahu alayhi wa sallam bu fa jaaroon ku yi ni Abubakar bu jaaroon ci xuttu yi ak ràbbu jargoñ bu yàgg ngii dana yàqu fii kenn dugg fi ndax jaar bañ bii ràbb bi ràbb bi yàq yàq yàq lay niru te bu fi nit nit jaaroon bu yàqu beneen bi mooy pittax mi fa nen te pittax du nen fu nit nekk waaye yooyu yàlla def jaar bañ ràbb fa gannaaw bu fa yonent duggee pittax nen fa donte yonent ak Abubakar ak fa ngir protéger soppeem bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam moo tax imaam Busiri ne zannu alxamaama wa zannu alankabuuta ala xayri albariyati lam tansuj wa lam taxmi wiqaayatu llahi agnat an mudaacabatin min adduruuci wa an aalin min alutumi booy wut kaaraange demal ca sa borom Cheikh al Xalifa mu ne kuy wéeru day seeti gannaaw borom dayo ya kuy wéeru day seeti gannaawu borom dayo te ki am dayo nag mooy borom bi subhanahu wa taala kéemaan boobu mooy ñaareelu kéemaan ki yàlla wane ci gàddaay yonent yàlla mooy Quraysh dañoo teg ñaar téeméeri gëlëm te gëlëm mbokk yi mooy li gënoon a cher ci li yaaram di am ci alal maanaam oto bi gën a ci oto yi tey moo doon gëlëm ci jamono jooja ñu teg sa nag ñaar téeméer maanaam bu fekkee ne gëlëm dix millions lay jar ñu teg ci loolu xaalis bu bëri la bokk film doon jar téeméeri junne sax buñ ca tegee ñaar téeméer muy ñaar téeméeri euh, maanaam euh, muy téeméeri million léegi nag su fekkee ne Quraysh def nañ loolu mooy gis na danger bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee Màkka te sàkkal ko pexe ndax xam nañ ne am na pacte ak waa Madina te bu fa demee dana tabaxal taxawal kon xeex ko dana mujj jafe Suraqatu bnu Malik dàqoona dawal ci gawar yi gënoon a jàmbaar ci jàmbaar yi ba mu déggee loolu rek mu jël fasam topp àll bi li wër yonent ak Aboubacar ba mu demee ba seen yonent sallallahu alayhi wa sallam ak Aboubacar yonent gis ko xam ne kii ci ñoom la jëm mu daal ñaan ñaanam gu gàtt googu allahumma kfinihi bi ma moo ñaan la goo xam ne ku ragal say noon ñaan ko rek yàlla dina la musal ci ñoom li xale yi di wax nooy tontoo sa noon xanaa ñaan yàlla rek mu musal na allahuma akfinihi bima chit yàlla yàlla nag ñu yàlla nag ma ko fegalee li la neex yàlla nag ma ko fegalee li la neex allahuma asra'u anna yàlla na nga ko nërmel ba du agsi ci ñun bi yonentu di ñaan loolu noppeegul sax ñu gis tànki fasi suraaxa yi commencé lab ci biir suuf suraaxa xam ne yonentoo ko ñaan yàlla mu ne ko danga maa ñaan yàlla waaye soo ma bàyyee maanaam soo ñaanee yàlla mu musal waxuma la dootuma la toppati waaye danaa dox sa diggante Quraysh ba duñ xam sax foo jaar yonentu sallallahu alayhi wa sallam non seulement mu bàyyi ko waaye mu feeñal gëneen kéemtaan koo xam ne ñaar fukki at après ak nangam te lañ koy gis wala fanweeri ak ak nangam ci lañ koy gis ndax ci jamono yi Seydina Umar ibn Khattab bul fàtte ne yonentu sallallahu alayhi wa def na fukki at Medina Seydina Aboubacar wutu ko def ñaari at Seydina Omar wutu ko def fukki at ak nangam kon ñaar fukki at ak nangam dana dikk wala mu jege ko balaa li wax suraqatu di feeñ mooy lan daf ne ko suraqatu nooy def nag bés bi ñu jëlee nguuru Kisra ba takkal la lamam ya loolu naqari woon gëm na ci jamono jooju koo xam ne yow yaa ngi daw ak say këmb néeg si nga am màkka sax mënatoo faa dëkk xamoo foo jëm ndax daa fa àggam de ci waxit ngay dig nit nguuru Amérique loolu la meloon waaye ci jamono Seydina Umar ibn Xattaab radiyallahu taala anhu ba gañee buuru Kisra ba indi lam ya Omar daal di jël lam ya takkal ko Suraqat Malik ñëpp ne lii de la yonent waxoon sallallahu alayhi wa nag ba mu dëppee Abu Jahl bëgg ko intimider mu ne ba gis nga boo gisoon nii sama fas wi def konoon nga xam ne kii du ku ñuy xeex yonent bi yàlla la kéemaan na ngi doon beneen kéemaan bu feeñ beneen mucjisa miracle feeñ ci yoonu gàddaay mooy mucjisatu shaati ummi macbadin ummu macbad jigéen ju extraordinaire maanaam euh, benn yoon bi mu gis yonantu sallallahu alayhi seetlu na ko ba description bi mu jox yonantu sallallahu alayhi wa na nga gis ku mën a décrire noonu yonantu bi sallallahu alayhi li ko def mooy nitu kaw la te nitu kaw dañuy am fit dañuy du amuñu complexe yonentu sallallahu alayhi wasallam ñi ko jege woon dañu am kersaam ba mënuñu sikki xol moo tax yenn question yi ngay dégg yëpp ci lislaam waa kaw gi ñooy ñëw comme ñoom ragaluñ dara bu ñëwee liñ bëgg a laaj yëpp dañ koy laaj saxaaba yi profité ci xamaale waaye bëri na loo xam ne ñoom seen kersa ci yonent yi mayu leen ñu laaj moo tax magi saxaaba yi koo ci laajoon moo xam ne yonent bi may du la ko mën a wax ndaw ñi ak ñi jógee ci kaw gi daanaka ñoo ko mën a décrire Umu Mabad nag lanay kéemaan ak miracle yonent bi ci moom mu yonent dafa jaar ak Seydina Abu Bakr ak seen guide bi Abdullah ibn Urayqit ak seen sàmm bi Amir ibn Fuhayra wax naa la ne def ñetti fan xunt wa génn na jaar yoonu tegg bi ñëwee ba yegg si ci Ummu Ma'bad gis fa benn gàtt yonentu sallallahu alayhi ne ko doo ñu may meew meewaa mu fa yonentu laaj ko ne ko gàtt bële ndax mën naa ko rat mu ne ko gàtt bële feebar ak lompañ a tax mënta ànd ak moromi gàttam yi dem ca sàmm gañ leen di sàmm yonentu ne ko ndax may nga ma ndigal dégg nga ndax may nga ma ndigal mu ne ko waaw bisimilah mu ne ko ayca yonentu daal di ñaan allahumma barik laha fi shatiha ñaan ko am solo la moo tax koy ñaan rek ñaanal ko barke léeg-léeg nit nuyu la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nga foog ne ñaanalul la waaye ñaan gënta rëy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ndax asalaamu aleykum yàlla lañ la ñaanal te dëkk boo gis ne tal nañoo doxi soxla rek dañoo am jàmm wolof nee na soxla bu dee ñaar rek wér a am ku amul wér doo tal lu wér doo am beneen soxla wa rahmatullahi bu yërmandeeg yàlla li nga gis ci àdduna bi yëpp li nga ci mën a xam ak li ci mënta xam li nga gis ak li nga gisul yëpp yërmande yàlla yërmande yàlla ci la oto dawee ci la ñuy nooyee ci lañ nekkee ci la lépp lu baax baaxee ci àdduna ak ci yàlla moo yàlla ne waa rahmati sama yërmande wasiat kulla shay ëpp na lu ne lu ne xaj na wa barakaatu barke nag mooy sakkan cheikh al islam alxaaj ibrahima Niass nee na barke du jëmm yooy gis waaye lu ne ñu xam barke du jëmm de waaye jëmm ñu barke ne rek ñu xam wax ne mbay ak gàtt gi ñooy yi gën a barke moo tax yàlla tudd leen ci alquran alxarfu wa nisl adduna bi ñuy liggéey ñiy bàyyee ci gën a tuuti nee na ñiy bay saison bi ñuy bay ci at bi moo gën a tuuti ci li ci at mi saison bi ñuy bay saison ba yëpp sax la ñuy bay dañuy bay bëccëg ya bàyyi guddi ba wala bëccëg ya sax du bëccëg yëpp la ñuy bay day dañ noppalu si mu ne waaye loo tiim ñu koy lekk rek duñ bàyyi ba ci barke ci nekk barke mooy sakkan mu ni gàtt yi muy xarak bëy ak nag lu xew nga ren ci benn moo xam ngénte la moo xam tabaski la moo xam da ngaa moo xam xew lu neex la mbaalu naqari maara day taali mu ne malgré loolu yëpp ànd ak xarak bëy li ñuy jur du bari benn mbaa ñaar waaye foo génn ci mbedd mi ak ci àll bi seen groupe xar seen turu bi béy seen gétti nag seen gétti gëlëm waaye xaj ak muus dañuy jura lu bëree bari te kenn du xewle ba rendi ci xaw ma séeréer yi nag waaye nit ñi moom duñ xewle ba rendi ci xaj yi mbaa muus yi te seetal boo génnoon sa buntu kër gis ñaar fukki muus yu groupe boobu mbaa ñaar fukki xaj nga dem lii mbaa jàmm la doo xam fu ñuy jaar yàlla ci yële la wane barkeem subhaanahu wa taala yonentu sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko ne yal yàlla def barke ci gàtti ndaw si le daal di jegeel bool biñ ko jox rek weeni gàtt bi fees dell mel ni kuy soog a am doom yonent bi salaay salaam rat ba bool bi fees mu jox Umu Ma'bad mu naan mu rattaat ba mu fees mu jox ay àndandoom ñoom Aboubacar ak Abdullah ibnu Urayqat ak Aamir ibnu Zuhayrat ba ñëpp naan mu soog a rat daal di naan ne saaqil qawmi axiruhum shurba kuy servir nit ñi moo war a mujj naan sallallahu alayhi wa sallam loolu de bokkut ak li tubaab wax ne nan la ko tubaab waxee charité bien ordonnée commence par soi-même loolu dafa wóoroog philosophie yonent sallallahu alayhi wa sallam wolof yi dafa mel ni xaw ma ñoo wàllu tubaab bi tubaab yee leen wàll ñooy wax ni séddale taamu naa ca gudd yu njëkk yonent ne déedéet nee na booy séddale yaa war a mujj am moom mi leen nandal mu mujj naan sallallahu alayhi wa sallam loolu it di ngi leen bi yonentu demee nag ndaw si jëkkëram ak si fekk non seulement yonentu naan nandal waa kër gi waaye ratt na bàyyi fa kooku yëngu waajum laaj ko lu xew mu nettali ko yonentu ak ñi àndal moom ba ko joxe melo yi mu ne ko kooku de mooy waaye Quraysh ji Quraysh bu dul woon jinne yay wër ñu wëy naan yàlla yàlla fay ña nga xam ne def nañ nangam ak nangam jaar ca gàtt ku mu maabat bu dul woon loolu duñ xam ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam raw na yonentu sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa sallama kéemaan yu yu yu yooyu la yàlla wane ci gàddaayam bi mooy génn gi mu génn te kenn ci ñoom gisut ko loolu mucjisa la xur wi nga xam ne mi ngi ci ñetti fan ñu dem ba tiim ko yàlla gumbaal seen bët yi ammu wa sammu fa ilaanul bashaa'iri lam tubsar mabaariqatul ilaani lam tushar ñetteel bi muy li xew ci Suraaqa ibnu Maalik ak façon wi ñeenteel bi li xew ci gàtt ak gàtt ummu maaba yooyu nag mbokk yi yonentu sallallahu alayhi la yàlla di dalalee xelam ak di ñu wanee ne moo kii dëgg-dëgg mooy ab yonent ndax mooy ci sa kat loolu rek lay wane ku mën defal ab yonentu bu defee miracle dafa samp dënd ku mën na def ab waliyu nag moom mën naa sax du yëg sax miracle bi te sañ tam sant dëkk moo tax miracle wala ñu koy tuddee karama lil awliya karamatun la tunkaruhu ma duaau nafruhu mu assam kon yonentu sallallahu alayhi wa sallam rawale diine tax na mu bàyyi lim bëggoon ak fi mu bëggoon ak ñim bëgg biir Makka yëpp ngir yàlla mi nga xam ne moom rekk moo bëggu subhaanahu wa taala lim ñuy jàngal mooy mbokk yi fu ñu nekk bu ñu sàgganee suñ diine fu ñu nekk bu fekkee mënuñ faa doxalee suñ diine suñu xaqi nekk foofu jeex na suñu droit wu nekk foofu jeex na loolu la Yusuf Qaradawi yàlla na ko yàlla yërëm jóge na fi jamono yii ne dëkk boo nekk te du dëkkub lislaam mënuloo garantir ne yow chaque lislaam dana continuer mënoo garantiral sa njaboot ne danañ continuer ci lislaam danañ nekk ay jullit ak sa njabootu njaboot nee na mënoo faa nekk loolu nag lu mët a bàyyi xel la yoon wu gàddaay gii ñu jaar daf ñuy fàttali loolu daf ñuy fàttali gàddaayu yonantu sallallahu alayhi wa ci weeru gàmmu waaye tamxarit weeru tamxarit lañ koy date première ajjuma ci tamxarit ngir ne weeru tamxarit ci la dëgg dëgg gàddaay gi tàmbalee formé naka noonu yonentu sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa sallama jàngal ñu ci biir njubam li alayhi salaatu wasalaam li ñuy tuddee sax ci mëbda sax ci mëbda maanaam yonent bi ko yàlla yónnee ñu sonal ko lool sonnal ay ñoñam lool sonnal ay jege ñaaleem lool waaye loolu yëpp taxut mu dellu gannaaw walla mu négocier walla mu wàcc ci dara li ñuy wax li ñuy tuddee compromis pour jub ak ñooñu ndax lañ nekkoon ñoom jubut ak shirk la moom lam nekk rek a baax mu def face àdduna yëpp nag lu mat ñaar fukki at ak ñett xam nga yonentu sallallahu alayhi wa sallam mabdaum muy principam ak jikkoom nooy noo ko gën a xamee gën a xam ni mu ko fonkee woon ak ni mu ko respecté woon ak gën a respecté yonentu ngir ne li muy wane ci biir dëgg-dëgg mooy li muy wane ci biti li muy feeñal mooy li am biir këram maanaam yeneen sa alayhi wasallam ay jëfam du weddi waxam ay mbiram du weddi njëfam wuuteeg nag ñu bëri ci woy màggi histoire bëri na tey kilifa gooy fonk lool naw ko lool plus nga koy xam plus sa respect di wàññeeku ci moom bëri na ñoo xam ne tey seen diggante wax ak seen jëf sore na lool seen diggante jëf ak seen xaal sore na lool yonentu nag sallallahu alayhi wa ni ngay jëriñoo ci moom matériellement noonu ngay jëriñoo ci moom spirituellement bari na docteur boo xam ne mën ngaa dem médecine de loo ca bëgg ci njëriñ daa ko ca fekk waaye jikkoom nag dara du la ca doy ingénieur boo xam ne wàllu ingénieur yi ca lam am spécialité kenn mënu ko ca waaye bu jëfee rek nga ne cëm boroom xam-xam boo xam ne bu waxee mbaa mu bind nga foog ne plumam asamaan la jógee waaye balaa mën a wax mbaa muy mën a bind dana naan ba dootul ànd ak sagoom yonentu nag sallallahu alayhi wa lu la jëfam wan fekk loolu la la waxam wan lu mu la wax jëfam confirmé ko waaye lu jëfam confirmé xaalam gën ko confirmé sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni mu mel ci pénc mi noonu la mel biir këram tey ji mbokk yi bëri na ci ñun ñoo xam ne buñ ñëwee ci jàkk ji mbaa buñ ñëwee ci biir nit ñi mbaa buñ demee suñu liggéeyukaay danañ wane jikko yu rafet danañ wane jikko yu baax danañ wane loo xam ne ku ñu gis ne yii jiw de exemple la dañ koy wane ci mbedd mi ngir ne nit ñi moom noo jëflanteeg ñoom rek lañuy ñuy yow wala ñu yóbbu ko ci suñ liggéeyukaay ngir ne bëgguñoo ñàkk liggéey bi waaye ay buñ demee suñu kër mbokk yi saa yuñ la taggee ci sa liggéeyukaay mbaa ñu tagguñu ci si jàkka ji mbaa ci pénc bi nañ comparé wax yii waa mbedd mi di wax ci ñun ak wax yii suñ soxna yi di wax ci ñun nañ comparé wax yii mbedd mi di wax ci ñun ak wax yii waa kër ga di wax ci ñun nañ comparé gis-gisu mbedd mi ci ñun ak suñ gis-gisu yaay nañ xool ndax niñ mel waa mbedd mi ci baax noonu lañ mel ak suñu soxna yi mbaa jëkkër yi nañ xool ndax niñ mel waa mbedd mi noonu lañ mel ak yaay yi ak suñu baay yi noonu lañ mel ak suñu doom yi ak suñ dëkkandoo yi. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax ki gën ci li yàlla bind waxul ne mooy ki gën ci mbedd bi ne mooy ki gën ci biti dafa ne xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahlihi ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram. te ki gën ci sama waa kër am na ñoo xam ne buñ nekkee ci mbedd mi kuñ gis daañu maslaa ak yow reetaan waaye bu duggee ci kër gi rek atmosphère bi changé xale yi kenn dootul ñemee ree kenn dootul ñemee wax kooku de royul yonantu sallallahu alayhi wa ku ñuy waxal rafet ak yow waaye bu ñuy wax ak seen soxna bu ñuy wax ak seen jëkkër yi indi weneen melo wudul melo wañ doon wane loolu nag mooy jukko yu woroo yonentu sallallahu alayhi wa sallam melutoon noonu yonentu yàlla dafa ñu ne mooy the perfect example for you mooy suñu exemple ci fegu ba muy xaleel sax mosta jaar ci yëfi ndaw sakka ba muy mag mooy suñu exemple ci trustworthiness ba ku ñu wóolu duñ ko wor mooy suñu exemple ci dëggu ba luñ wax ku ko dégg xam ne dëgg la waaye mooy suñu exemple yi ci xam ak ci jëf ak ci woo nit ñi ñu xam te jëf ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam yàlla def na ko jàngal mu jàng mu ne ko jëfal mu jëf na ko woowal nit ñi mu woo leen mooy suñu exemple ci bëggal nit ñi mbaax ku raw sax mbaax ki mu bëggal boppam ndax biñ ko sonnalee moo ki saxaabaam mënoon naa wax ne damay dem waaye fekk mi koy mën a dékk moom demut waaye saxaabaam yi nga xam ne ñoom lompañ nañ mu yebal leen na leen dem leen ca xabasha buur a nga fa boo xam ne du tooñ te duñ tooñ fa moom muy najaasi di gàddaay bu njëkk gën saxaaba yi luñ mën a muñ de lañ doon dékku doomu aadama xaw naa lott ci mën koo muñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag sauvé leen waaye moom mu toog di muñ ba ay ati at yàlla di ko soog a jox ndigal gannaaw luñ lu ne ci tëkku yuñ ko tëkku tëkku ko entourage dem nañ ba bi ñu defee lu nekk mënuñ koo convaincre ñu jéem a négocier ak moom mu lànk ñu daal jaar ci baayam bi nag daldi ko tëkku baay bi nag daal di ko woo ne ko jéemal a jub ak sa mbokk yi ndax booba mel na ni sonn na yonentu ne ko bàyyi man de buñ jëloon jant wi teg ko ci sama ndeyjoor mu di ma lakk weer wi ci sama càmmoñ lu tax ma génn ci lii lu toll ni tarfatal ayn lenn rek mooy tax ñu juboo mooy ngeen weddi yàllaay caaxaan yi te nangu yàlla ji nga xam ne mooy yàllay dëgg loolu mooy mbokk yi ak tabaatu ala al mabda lu métti métti gannaaw xam nga ne li nga nekk mooy dëgg walla ci kenn génne bañ demee nag ba maslaha gi diil bi mënta ne ñu tëkku taxul mu tiit ñu ne nag nañ def li ñu tuddee xisaab ñu boycotté ko mook ñi ko jege yépp ñetti at yàlla yoo xam ne duñ nuyoonteeg moom ak ñi ko jege ku nuyu ci ñoom ku nuyoo ci ñoom duñ la fay duñ waxanteeg ñoom duñ mayanteeg ñoom jabar duñ jaayanteeg ñoom duñ jëndanteeg ñoom lu ñëw ci dëkk bi sax ñu xam ne yonentu sallallahu alayhi wa ak waa danañ ko soxla danañ ko yàkkamti jënd ko ngir yonentu wañ ci am moom ñu ko jege loolu nekk na ñetti at mbokk yi yonentu di ko muñ biir Makka ba bés bi muy wane miracle ne leen këyit ga ngeen bind seen pacte bi ngeen ma daggee maag samay mbokk fa ngeen ko tëj max fekk na ko fa lekk ko lu dul tudd yàlla wa nekk bismika allahu ñu ne eh, xool ñëwati na nag ak léeba bi commencé di reetaan Abu Talib ne léegi su fekkee ne li mu leen wax dëgg la mu fekkee li wax dëgg la ñu bàyyi leen ngeen ngeen dindi eh, xisaar gi ñu ne waaw waaye bu fekkee lu ñu wax du dëgg de lu wax du dëgg nag ñu koy bàyyee ñu sàkkal ko pexe bañ demee xool gis ne lam waxoon mooy dëgg ñu soog leen a bàyyi waaye xisaar googu métti na ci moom lool ba soxnaam li muy am am pas-pas jigéen la bàyyi këram gu rafet ga ca xajuun ñëw dëkk seeg moom ci cheikh bu abi talib bàyyam it mag la moo tax juróom-ñetti weer gannaaw xisaar ga lañ gaañu ñoom ñaar ñëpp ci benn semaine lor wu nekk yonentu sallallahu alayhi wasallam daj na ko bokk na ci ñi gënoon a sévère ci lor buñ lor yonentu sallallahu alayhi wasallam nadr nabi abu jahlin uqubatu aasi abu qays malik munabbih rukaanatu mut'im umayatu axnas adi ibn hamra hudali ay ibnul asda ak ñaari aswad yi zuhayr ak xaarisu ak utaybatu doomi abu lahab ak ndeyam ummu jamil mi yàlla di wax ne wa mraatuhu xamalatul xatabi wala xamalatal xatabi ñaari walit yi shaybatu ak utbatu ñii lu ne wan nañ ko yonantu bi sallallahu alayhi wa mag waaye taxul mu bouger ci principe am alayhi salaatu wasalaam gannaaw xisaar gi nag ak baayam gaañu muy bàyyi taxam ak jabaram ju baax jooju di sayyidatna Khadija ci la demee ca Taif nag Taif métti lool ba mu ñibbisee ci yoon wi yàlla wan ko ne ko jinne yi ñu ngi nii ci sa kanam kon nit ñi la xamul waaye jinne yi xam nañ la way saraf naa ilayka nafaran minal jinn malaaka yaa ngi nii di intervenir nit ñi la xamul waaye malawul ala xam nañ la doxandeyam mi ngi nii jóge ci iraq ñëw gëm la kon nag bul jaaxle ne makkat taayif duñ la nangul waxuma la makkat taayif waaye adduna yëpp sa risalatu bi dana fa yegg wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi bashiran wa nahira ca la ko yàlla yóbbee nag mu rañaan ngir dalalee ko xelam wan ko ni dara jaam toll ci malaw la ala te ku mos foofu fii du la safati yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba muy ñibbisi jógee ci isra wal mi'raj ñëpp foogoon nañ ne dootul mën a nekkati fii ndax neexitu foofu dafay bew waaye fekk na ab yonantu la xawatul sax mën a téye yar bi mu daan yore bu walee ci baxlaam ndax toroxlu sallallahu alayhi wa borom mbaax noo ko gën a teralee mu gën a yëg ne moom du dara waaye baadoola noo ko gën a teralee mu gën a yëg ne dafa yelloo teraanga ja moom mooy lépp yonentu nag mooy sangu way baax yi moo fexe ba képp ku doon baadoola ci ëttam baax ba gën a baax buy baax ci àdduna bokk na ci li ñuy jàngee ci hijratu mooy yonentu salaay sallam wane gim wane ne àdduna ak yi fi ne yëpp du dara ci kanam àllaaxira ndax bu ko neexoon nekk Makka négocier ak ñoom saxaabaam yi it noonu waaye xam nañ ne loolu alkande yi àdduna ak àllaaxira la ñu tànn teraangay àllaaxira bàyyi lépp loo xam ne nii àdduna la bu fekkee ne nar na nekk compromis pour seen àllaaxira yàqu kon daw ak diineem moo doon sabab ar raisi bu taxoon mu gàddaay moom yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama sacrifice boobu nag yonentu def ba diine jot ci ñun ay sahabaam def ko ba diine jot ci ñun moom nañu war a def ba diine jot ci ñëpp sonne gi mu sonnee barab bi julleekaay yi ba bi mu yegsee màkka loolu bi mu yegsee dina jàkka la fa njëkk tabax war naa tax ba fu ñu déggatee ñuy tabax jàkka ñu war caa dugal suñ doole waaye fépp foo xam ne nee nañ fa te amul jàkka te ñu mën ko faa amal moo xam suñu village yi la wala suñu quartier yi la ñu def luñ mën pour jàkka am fa ngir royee ko yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ba mu ñëwee lim njëkk a def mooy aw sax xajraj bi nga xam ne ñoo nekkoon dina xeex xeex boo xam ne amul ab pour ñu bëri dee ca lam njëkk a def mooy boole leen def leen ay mbokk dindi sax aw Aws ak Xasraj ne leen lansaar ngeen tudd léegi yéen yéenay dimbale yàlla yéenay dimbale yonent yéen yéenay dimbale diine yàlla ji jël tamit muhaajirin yi ñu jógee Makka ak yeneen di dëkk ak ñi nekk Medina def leen ay mbokk ñu war caa jàngee ne ñun ñëpp dañoo war a mbokkoo waaye fépp fu ñu gis problème te ñu mën ca dara nañ fexe ba problème ba fay waaye buñ jël parti lépp ci ñun nag dañuy jël parti ak di juger d'après suñuy désir ak suñuy bëgg-bëgg ne diwa tooñ ba diwa am dëkk xare yi nga xam ne it euh, fundëq euh, du taarif burju saa taarif burju saa amaam alkaaba burju saa ma taarif burju saa alxaram fi alxaram جنب الحرم تعرف برج ساعة؟ لكن يمشي كوداي ولا يمشي يلا يلا روح روح على الجوجل عندك جوجل ماب دوغل ترو كي بي اوتيل بي دوغل ترو اوتيل بي ci جوجل الحمد لله ñu ngi هنا رقم ما في نفر ما في موجود هنا في في نفر وولك كيلو دون واسع عبد الله كلم رقم حقك اديني واتصل واخكو واخكو وولك وولك عبد الله kon nag ñu xanaa tëjee foofu ndax léegi tey ñu ak eh, yoonu gàddaay wi lañ bëggoon a mos tuuti rek ak fàttaliku li nga xam ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam daj na ko ba diine yegg si ci boo xoolee lim daj yëpp da naan xanaa bu yeggee Madina rek noppalu waaye bu yeggee Madina fekk fa yahud yi ñu sonal ko lool fekk fa naafeq yi ñu sonal ko lool ay mbokkam it bàyyiwuñu ko ay xare yoo xam ne du jeex mu sonn ci lool ngir diine taxaw kon nag ñun ñëpp nañu xam ne xare yooyu suñuy xare la te xare bi gën a bëgg mooy xare ak suñu ba miin diine ba suñuy njaboot xam diine miin ko suñuy dëkkandoo noonu suñuy xamaale noonu xam nañu yàlla dimbale bañ mën a xareek suñu bakkan ba mën leen mën a xareek lépp loo xam ne dana taxaw ci suñu diggante ak gërmande yàlla ndigam bakkan la ndigam seytaane la ndigam alal la ndigam adduna la ndigam lumoo lumu la yal nañu yàlla may yàlla hada wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi aha dama doon mos ci gàddaay gi rek